ñu ne waa ji daa am problème nelaw de day nelaw rek foo ko fekk day nelaw di nelaw ba jaaxal ay mbokkam mbokkee de waa Gamkang waaw ñu organiser ay jàng yi mag tuddee ko waaj ngir mu wàññi nelaw yi si bisi jàng ya waaj daal une heure temps bu mu toog jën un kilo café daal di xool daal naan une heure bu mu toog jënd un kilo café daal di xool daal di naan ba mu toogee ba guddi ga ba sañse ba war dem si jàng ya si la jënd pot Nescafé bu mag daal kay koy bokk di mëq di dem di mëq di dem di mëq di dem di dem ban eggee la fekk ñu foo mu jàng ya ban foo may jàng ya ba léegi toll na 6 mois waa mun mënut a fexe ba nelaw waaye seen yéen kaay mu demati ba tey de ñu ne kii di Ibou Touré la ñu koy wax Ibou daa génn si hôpital ba dajee xarit ba Aziz ay daane ko Ibou na nga def Ibou ne maa ngi fi mun ko foo génne si hôpital bi Ibou ne ko waaw mun ko xanaa da ngaa feebar Ibou ne ko waaw ku jóge si hôpital rek da ngaa feebar xanaa ko ku jóge si armée da dee acca seen yéen kaay mooy dem ba tey de ñu ne waaw ñu ne lan moo xew ñu ne ñaari paa yi dañoo tàmm carte xaalis tàmm carte ñu ne paa yi ñaata at lan am ñu ne am nañ quatre-vingt-cinq ans ñu ne paa yi kañ leen commencé carte xaalis ñu ne de cinq ans ñu ne nan lay carte xaalis ñu ne waxtu julli donc lan taamu de fajar tisbaar takkusaan ak timis ak gee ñu kon nan lay carte xaalis ñu ne ñoom bu ñu di dem benn paa bi day junni ba ñaari junni jox nekk nan tegal ma teg ñu xool maa yow kan mooy trouvé ban ok ñu continuer ba tey de ñu ne seen syndicat mooy des foofu si diwaan yëmbal sam-sam tëli ne la moo waxe ñu ne liir ba daal iñaan a ko ba buggoon a poson beneen seex ba waaw waaw nee na daal moom mënut a supporter di nàmp si ween bi beneen seex bi di nàmp sa ween ba sa des liir ba daal loolu la mënut a supporter liir ba daal ut na posonam xaw ma fu mu ko jëlee journal bee ko bind léegi ba ma lijjantee poste na bind na diw na ko si weene yaaja ba nga xam ne côté boobu la beneen liir ba di fóote woon nàmp waaw sa guddi ga de te dina nelaw liir ba nga xam ne moom moo jëf-jëf yu ñaaw ja fajar la yeew pour daj kumpa kan moo faatu ba mu xoolee gis na beneen seex ba di foo mu xool papa ja fekk papa ja dee waaw seen yéen kaay mooy des ba tey nee na góor jigéen ba daay yegg si car ba de waaw daal jox emprunté ba paas nu ko ko joxee xaw a jigéen ne lool emprunté bi daal koy xool daal ne ko waaye xanaa góor jigéen góor jigéen bi si ñàkk jomam si ñàkk faydaam daal ne ko bu mag léegi nag emprunté bi nag daal ne ko fee wax ju góorewul baa mu dëgër du ma la weeci waaw loolu la mbind kay ba ko góor jigéen ba emprunté waxee loolu góor jigéen emprunté daf ne ko fi wax ju góoriwul baa mu dëgër du ma la wecc si la góor jigéen bi xool bañu emprunté yi nekk emprunté amul dara siy bañ góor jigéen ba daa koy tàllal baaram naa ne ko wéy ku may matt man léegi nag si noonu emprunté ba daa di énervé emprunté ba ba mu daa di mere mer na de mer na de daa ne góor jigéen sa wax jooju noonu bu ñaaree da ngay wàcc oto bi góor jigéen bi daa ne ko nekkati yoo wéeroo gis nga boo ma laalee mu daa ne ko gis nga boo ma laalee su ma la gajee yaay gaañu